wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokk yi nga xam ne ñoo ñu baaxoo di bàyyi xel fii ci jumaa ji e, ci commission bi nga xamante ne bii ñooy séentu weer wi te di ko def ñaar fukki fan ak juróom-ñeent yu jot ci weeru wolof ñu toll nag ci weeru diggiw tabaski e, tey ji di dibéer di ñaar fukki fan yi ak juróom-ñeent ginnaaw boo xamante ne bi julli nañ timis ba noppi ni ñu ko baaxoo defee danañ ko ànd ak waa commission bi di Serigne Moudou Mamoun Bousso mi nga xam ne moo ko jite waaye mu ànd ak Serigne Abdou Diop imam mi nga xam ne moo yore kàddu gi ànd ko ak waa daayira mu xaddamatul xidma bi nga xam ne ñoo yor lépp lu jëm ci jumaa ji ak li ko wër di jokkoo it nag ak ñi nga xam ne ñoo ñu nekkal ci région yi ku mel ne Serigne Bassirou Mbacke mu Serigne Abdoul Khoudous te dox suñu diggante ak waa Tiwaawoon waaye Serigne Modou Mbacké si mi nga xam ne moo jiite représentant xalif général des mourides ne ci région yi waaye imam Diène ak imam Ndiaye ñi nga xam ne ñoo nekk ci commission ba nekk Dakar ñoom ñëpp dañuy jokkoo ak ñoom su ko defee luñ fi tënkee nag ñu daal di jokkoo ak Serigne Touba Cheikh Mahmadul Mountakha luñ ci tënkee moom dañuy yëkkati ay kàddu xamle ko kon nañ ko baaxoo def def nañ ko ni euh, ba yàlla dogal na jot nañ digal ngir leeral li nga xamante ne bii moo di taxawaay bi. dama leen di bàyyi ak sëriñ abdu Diop imam mi nga xam ne moo yore kaddu commission bi su ko defee mu leeral ñu kaddu yi nga xam ne mooy ndigal li bàyyi ko ci sëriñ Touba Cheikh Mamadou Mountakha taala wa barakaatu ani ko sëriñ Fallou Garas waxee rek mooy nan ko baaxoo def muy ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weer wu ne sëñ bi dana yebal ci jumaa yi ñuy yéene ci rajo yi wax ne ndax ne wax nañ seentu weer yi te loo ci waaye xam nga ñëw yëgle ko bu defee noonu ba noppi danay génn ci soowu nag fi nu war a séntu weer wi di di séntu weer wi bu ko defee ak di taatan xibaar yi ci gox yi bi ñu ko defee nag ba waxtu wi jot nag te déggun benn xibaar bu wax ne gis nañ ko fenn lañ daal di jokkoog kër kilifa gu tedd ga muy Sëñ Muntaxa yàlla na ko yàlla sàmm te yàggal ko fi ba biñ ko ko waxee nag waxe ko kon ni ñu ko ni ñu ko toppatoo mu wax ne kon nañ nañ yëgle ne kon feeñul. kon ñu xam xame ko noonu xam ne suba ci altine ji kon mooy mot mooy mottali weeru digg wi di fan weer yàlla fanam altine bu ko defee talaata mooy doon benn fanu tabaski bi kon loolu ñu xame ko noonu kon nag kon nga xam ne alxamis bi su bi mooy doon tabaski waaw ndax boo nee altine boo nee boo nee talaata muy benn fan àllarba alxamis ñetti fan ñi bu dil see mooy doon fukki fan ñi di bisub tabaski bi ñu xamee ko noonu te yàlla yàlla may nun wér ak xéewal ak jàmm ak sutura ak teraanga ba yëpp mat ci dara ji Serigne Touba asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waxee rek séntu nañ weer wi ba yàlla dogal na jokkoon nañ ak région yi ñu war a jokkool ak représentant yëpp gisuñu weer wi kon li ñu jàpp mooy su talaata mooy doon benn fan ci weeru diggi war weeru tabaski wi kon ñu jàpp ne bi bisub tabaski bi alxames lay doon incha allahu rabbi ñi ngi sant ñëpp di leen gërëm di bala àq ñëpp di leen baal àq wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.